tante lool ah tey ji fekk fi tey benn xale boo xam ne jeune la ndaw la ñu gën ko xam ci Fallou tey ñu fas yéene koo jël sekk moom ay waxtaan yu bare bare yi nga xamante ne ñoom yi nga xamante ne ñu koy dund Fallou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay abu ñu ngi lay fay lu bëri doole waaw ñu ngi lay fay lu bëri doole di sant yàlla di suñu julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur waaw ñu ngi lay fay lu bëri doole abu tey ñu tey ñu fekk la fi nga xamante mooy sa makaan nga too ak sa gars yi ñu ñëw euh, Dakar mi di tey ñu ñëw seet si la il faut dina fekk yéen ay waxtaan te yoo xamante ne tey yu bare bëree bëree bëri ah tey Fallou ñu fekk fi nga xamante ne mooy arrêt Express arrêt Guédiawaye ngeen di liggéey ci li oto yi ngeen di dund tey loo xamante ne tey ay jafe yu bëree bëree bëri parce que tey ku ne appareil yi ñu xool leen ci bëtu bandi ñëpp fu mu ne nii loolu fa la leen teg fa leen di jàppee tey nga yëg ci lool waaw loolu dëgg la parce que boo nee abarante bandi la ñuy wax nga ne dawal ko du seret bandi la ñuy wax mais tamit li nga doon soo ko bañee daa fekk nga gën saa ñaaw parce que loo gi si àdduna nekkul ñëpp la ñuy jox cër bu bi nga moom mais terewul yow yaa xam ki nga doon parce que boo seetloo marché bi ñi biy saldel ñëw def lu leen neex duñ ay abarante parce que mënoo dëkk si marché bi di fi toog chaque jour di def lu ñaaw marché bi ñi fi dëkk di fi def ñi fi dëkk duñ fi def lu bon ñi fi dëkkul ñoo fiy def lu bon dem seen yoon mais ñun mënuñ si dara chaque jour ñu gis loolu mais mënuñ si dara mais ku sóoru marché bi ñoo mën a faj loolu noon mais ñoom jéemuñu si loolu dërëm parce que ñoom chaque jour apparenté la ñu bëgg a sëf lépp te ñun apparenté yi ñu fiy liggéey ñoo mënoo nekk si bërëb di fa amee teraanga ba pare di fa def lu ñaaw loolu Olof Njaay wax na ne ne fi ngay amee teraanga doo fa def lu ñaaw kon ñun fi ñu dëkk nii ku la wax ne la ñu ngi fay def lu ñaaw amul ñun xamuñu lu ñaaw ñun liggéey lañu xam su ñu waajur ñun buñ liggéeyul sax dañuy am problème parce que dañuy fekk dañuy sëngeem nekk si beneen dimension boo xamante ne nii da ngay xam ne kii carrément tey jii nii lu rafet la bëgg si live am mais tey mënuñoo nekk si marché bi nga jóge fële Orsay ñow def loolu neex saldel marché bi des fois marché day am marché yoo xamante ne nii dañuy leen lii nii tey am day day tàng ñun dañuy jog yor suñu yat yor suñuy bant taxaw fii pour bañ ko salteel lépp taxaw fii yor suñuy bant boo fi jëlee lu yëfu jàmbur ñu na la gaan indi nga jox ko ñu yóbbu ko police Corniche wala police Guédiawaye dañ koy jël téye ko ñun na xamuñu boo xam ne dinañ ko jeex wala déet mais ñun suñu warugal la ñuy def mais marché bi abarande amul def ko te ñaawteef parce que abarande bi ñëpp ñi si ëpp dëkkuñu si tawaan bi ñi si ëpp ay bool bool lañ ñi saalum lañ dëkk ñi si dëkk si tawaan bi bëriwul kon buñ duñ def ñaawteef te dafa am lu xew si oto yi loo xamante ne nii tey jii nii dinaa ko pour ñu comprendre parce que oto yi tey da am benn affaire bu xew xam nga la moo fi xew yow boo roy odo da ngay dem seen dëkk dem jëli say mbokk sa benn jerbaat wala sa benn doom moom mooy ñëw toog moom mooy ñëw toog yor porte bi mooy liggéey kooku du xam dara si temps bi du xam sax ay versement wala yooyu lu ko neex la lay comme ñun ñi nga xamante ne ay gaan lañ tey sama gaan sama mafia sama mafia kenn liggéeyul parce que Seydina Mouhamed billaay wallaay yàlla rek moo tax may wax dañuy xëy bu ñu xëyee xam la la def dañu xëy gaan may ma fukki dërëm may ma juróom taxale ba yor benn trois cent dem taxale ndékki suñ déggee après añ dañ koy taxale léegi yow taxale añ boobu noonu sax leerul da nga gis sa liggéey nga ñëw añ boo xamante ne nii dix personnes ñoo koy seek wala quarante personnes ku ne ñaari kuddu lay am maanaam ñun ñu ngi ñu ngi si temps bi de mais li nekk peese ñun loolu la ñuy dund li nekk kaso loolu la ñuy dund ñun parce que kaso xam nga moo fa am kaso dañuy teg bool boo tibee doo tibaat barki Serigne Bamba boo tibee doo tibaat billaay walaay taalaay ñun maanaam loolu la ñuy dundu parce que ñun taamu ñun di añee suñu gala yi ñun dañoo taamu dund milieu toog si àll bi toog xam nga sa gaañ jënd añ nga am si ñaari kudd bu jeexee jeex na nga nekk si leneen ñun loolu lañ xam tey jii nii nii nii man sama ñetti booy yi nga xam ne moom lañ ma xamee may ànd ñaari booy yi nga xam ne moom la ma may ànd ak ñoom muy Modou ak seex ma déggen tey jii Modou bu liggéeyee man damay tëdd nelaw ba midi ma yeew ndax damay leen par la force Cheikh moo liggéey damay añ dinaa reer dinaa añ dinaa reer dinaa ndékki moo liggéey par la force su ma demee Cheikh dina ma jox ma añ reer ndékki dina ma jox weccet ma dugal sama poos Modou moo liggéey dinaa añ dinaa reer dinaa ndékk tey jii nii te ñooñu noonu liggéeyun kenn du leen jox ñu liggéey parce que xam nga la moo tax am nañ ay waajur am na lu ñu bëgg kenn du leen bàyyi xel si maanaam ñi ay ngaax lañ temps bi la moo fi xew duñ liggéeyloo koo xam ne ngaa nante la am na lu mu def si boppam maanaam am na lu mu def si expérience am ku waa man lii laa bëgg duñ la joobloo xam nga la ñuy joobloo koo xam ne xamul dara kii ngaaka la dërëm kii moom xam nga la la bëgg kii maanaam na am benn jaan boo xam ne trois mille cinq la ko jëndee bund Pikine benn bëri bu taw moom la ñuy joobloo tey Cheikh bu liggéey damay li damay damay am damay añ damay ndékki damay reer dina may weccet moodu noonu mais tey jii am na koo xam wala ñaar dërëm xam lan la lay wax barki Seydina Mouhamed wala ndox bu ñaa dërëm yàlla rek moo tax may wax dem piggin ñëw nga war a naan mu war a xaar ko dem Pikine ñëw abu loolu day yéeme sëriñ Serigne Bamba soo duggee si kër yi ndox te gaale yi léegi temps bi changé na changement boo xam ne yow gaale boo dugg di ñaan ndox danaan naan non kii daa am lu muy opéré day am lu mu bëgg quoi am lu mu bëgg a jël te tey jii nii ne adduna bi doxewul noonu ñun buñ sañoon fii adduna ku sañoon kenn du la gën yow boo sañoon kenn du la gën man bu ma sañoon kenn du ma gën mais tey jii nii milieu danger na danger boo xam ne danger na danger tul sax parce que xam la ma tax danger tul ñun liñ fi liñ fi fekk amu fi woon parce que daa am ñoo xam ne ñoo fi dawal loo xam ne ñun xamuñu ko ñun fekkee wuñ ko ñun boobu juddu wuñ sax ay rey nit man damay toog ak ay grand frère wala ay mag ñu may wax naa ma pourtant fii amoon na teen fii amoon na tali boo xam ne biñ koy dawal bi am na benn bandi bu fi koon bandi bu mag bi ñuy bi ñuy defar tali bi am na benn machine bu ñu tegoon dafa amoon benn genre hélice da say dugal loxoom téene machine bi du daw mu dagg loxo yi baaraam yi baaraam yëpp wadd barke Seydina Mohamed kooku man yow bu la koy wax wala ñu ma koy wax man dama naan loolu du dëgg barki alxuraani karim loolu fekkeewu ma ko te sam booy yi toog nii yëpp kenn fekkeewu ku la si wax fekkee naa la ko rek wax na la loo xam ne du dëgg te booy bi nii toog am na lu mu si jot a xam mais xam na kooku mais xamul si moom yenn rumeur yi Modou Borosset booy bi toog sama gaan la man maay ànd ak moom mais moom loolu xamul xam na gaan boobu de mais xamul ay rumeur am ndax boobu booy la barki alxuraani karim te kooku boobu mu ngi dund ay ñaawteef yu bëri fii nii te xamuñu ko tey yàlla suñu borom jël na ko ñu ne dafa doon téye ilis téye ko nii mu dagg loxo yi xam nga ñun bandi boobu noonu amatu Sénégal marché bees amul bandi de xam nga am sa yaay yaakaar la sa papa yaakaar la nga xëy amoo loo leen doo joxe dépense ñu yaakaar la ne kat man kat tey jii Fallou mii laa yaakaar moom moo war a jox dépense ndeysaan amoo loo ko jox. marché bees tey jii apprenti yu bari dem nañ kaso te duñu ay ji kaso lool surtout maa suñu aliya bi ñun côté géejuwaay bi ñun ñoo ñun ñoo ëpp si jeel bi dama xamul lan mooy suñu problème parce que dama xamul lan la nag dama xamul si suñu jeunesse moo ñu jàpp wala gars yi état bi ñu gëstuwut wala lan la parce que ñu xool nañu ba biir kaso yi ñun ñoo ci ëpp ñun waa côté géejuwaay bi tey loolu soo ko waxee tamit dama la si tontu parce que waa Géejawaay bi état bi benn instant bàyyiwu leen xel parce que ñun ay banlieue zaar la ñuy wax Diamaguène Yeumbeul Thiaroye Pikine Géejawaay ñun ay banlieue zaar la ñuy jàppee waa dëgg la ay banlieue zaar lañ ay doomu aadama lañ de tey boo demee kaso am na ay boo yoo xam ne ñu ngi 100 amuñu sax 18 ans te ñu ngi leen di tëj ay trois ans. forbe lañ leen waroon yóbbu forbe lañ leen waroon yóbbu forbe parce que alxuraani karim ndax seen seen âge jotagul dem peese samer waraguñ faa tëdd kaso barki alxuraani karim te tey ay trois ans lañ leen tëj ay quatre am na xale yoo xam ne boo leen tëjee trois ans abu par la force bu ñu génnee dañuy doon bànni ndax xam nga la dañuy doon bànni dañuy génn duñ am job kenn du leen jàppale dañuy am ay mbokk yu leen war a jàppale mais duñ leen tal dañuy fekk temps bi gën a saturé par la force dañuy doon baani wër na Seydina Mohamed loolu mooy tax par la force dañuy doon baani parce que yow imaginel yow tey nga xëy sa sa yaay yaakaar la sa papa yaakaar la lal booy yi fii nii booy yu bëri man damay toog fii si marché bi ay booy yu bëri yow man xaw ma leen de par saa la ñuy dañuy ñëw fii ndeysaan damay gis ñuy def ay action yoo xam ne loolu du yëfu nit këf sëfa daw cheveux yoo xamante ne nii ay cheveux naturel yoo xamante ne nii ay xawma sax la lañ koy jaay man cheveux naturel sax su ma ko gisoon tey jii du ma la ne lii mooy cheveux ay cheveux la ñu ko daw dem jaay ko ñu jàpp leen tëj leen trois ans trois ans buñ la ko tëjee ñetti at yàlla suñ la ko tëjee soo nekkul champion dëgg yàlla suturaalul dëgg boo génnee da ngay dof xam la moo lay dobloo soo génnee da ngay topp say xalaat parce que kaso ñaar moo ba ñett da ngay fekk ay bëre yoo xam ne ñu ngi si biir ay bandi lañ xam la lañ la gëmloo gaan boo génnee nañ lonkoo nañ lonkoo parce que man dañ may jaay ay magasin yoo xam ne dama koy jaw li jën sam bopp man champion laa wan ay photo yoo xam ne caa seek moo ko doon woy wala mbooy wala keneen ak keneen nga ne kii am ko du xaalis la nga génn teg ko soog ndeysaan fekk kooku yàq na sa àdduna kooku noonu noonu boo ko toppee barke Serigne Bamba da ngay xaar beneen dimension si ngay nekk dimension boo xamante ne nii mun na laa jural loo xam ne yow après da ngay perdre parce que dañ lay raw say moroom dañ lay raw say morom lan lay rawee suñ la tëjee trois ans nga fu nga tëdd ko grâce bàyyiwu la nga tëdd trois ans génn di nga fekk ki nga doon àndal benn paate wala siyeex wala Omar raw na la si benn action am na jabar wala am na atelier bu mool bu muy joobee dañ koy fay weccet am na doom wala am na job bu mool yow boo génnee da ngay siisu da nga naan noo kii waruma raw si lii wala am na benn fas ak bu mu jox benn booy mu koy natal benn tóotaw wala oto da ngay perdre da ngay siisu da nga naan noo xaaral soo génnee yow xam nga la ngay gis dem jënd xam nga la ngay jënd pompe à gaz loolu lañ naan missile ñoom bande yi missile lañ koy wax mm-hmm. misil nga yor dóor ko benn bërë koo xamante ne xam na lépp koo xam ne daal dund laaf baane ba bàyyi ko nga dal si moom mu ànd ak jabaram wala gelam wala leneen yaayam ak papaam nga jël si moom benn kool wala benn genre yu ñàkk fay da ngay jël si moom mu xëy fekk la nga toog mu ne la kii moo jël sama alal nga dem ñu vidéo la korog korog boo xam ne ndeysaan doo xam foo koy waxee barke sëñ Bamba bëri na ay bëri na ay boo yoo xamante ne ak suñu ñàkk fay la ñu dóor waaw léegi te korog yi ñuy te senegal mhm. korog yooyu jarul korog de. te bu nu gëstuwaatee état bi bu doon nit la bu gëstuwaatee. Mhm. yi ñuy viré korog. ma suul sama ndey jarul korog. ay boo yoo xamante ne nii dañ leen di tëj korog si lan lañ leen di tëjee korog. sëba naturel bu ñu la si tëjee korog. jërul korog man sëba xaw ma ko su ma lan gisoon tey dama leen ne lii mooy sëba. ndax talu ma ko man sama bët li naan la naan mais jiw tan jéggi na bëtum melentaan tan du melentaan jéggi na bët bëtu tan liñ koy waxee man loolu laay dund man taluma loolu mais booy bëri tey ay cheveux la ñuy jël ay greffage ay kóol kóol ay kóol yoo xam ne dañ ko jël ndaysaan beneen infraction moo leen siy fekk duñu xam sax man damay dem tribunal toog man mi di wax yow nii parce que Serigne Bamba am naa mandat dépôt boo xamante ne nii li ma gën a métti sama àdduna si la bok te ndaysaan man xaw ma sax nu mu demee lang si oto jógee buntu Pikine man jour boobu maa liggéey ba wàcc man boobu maay lang ndax man lang naa apparenté lang naa ko barke baam Bamba ma liggéey ba wàcc gaare Texaco jàpp oto Texaco jëm buntu Pikine jàpp oto ñëw booy bi ma lang sama booy la Assane Jole ndeysaan moog booy bi toog ñooy ànd booy boobu innocent la xam nga fa dëkk dëkk boobu su ma la ko waxee sax doo ko xam man xaw ma dëkk boobu musuma faa dem ak yaay bi mu ko waxee accident bi daa da doon reetaan ne ko man xaw ma dëkk boobu barke sëñ Bamba dëkk boo xamante ne nii yow xamoo ko ñi booy toog fi ko wa doom moom mii gaanam la demee mosu faa dem Fallou Guiri sama turandoo la xam na foofu bu baax ndax moom bu dee benn yoon sax dem na fa booy bi ne ko foofu laa dëkk booy bi si otoom laa jàpp benn téléphone moo réer si marché payé bi ñu ne daa am ñu ko jël ma ne leen fëgg leen oto bi si buntu police bi est-ce que jëlkat dina dina soxla police man ne leen fëgg leen si buntu police bi. waaw ngeen xool ñu si ñu liggéeyanti bi. waaw police Guédiawaye central bu mag bi ne moom mooy central Guédiawaye ñu fëgg. Mhm. ñu wàcc heureusement oto bi ñaari homme de ñetti homme de ñoo si ñoo xam ne ay buumu ma lañ. Mhm. mu xaw ma mission lañ jóge xaw ma fan wàcc soluñ tenue ma ne leen man kenn du laal samay poos ndax doo leen ay policier ñu firi kar ma ne leen léegi xam la moo gën a yomb. Mhm. dëgg la wan ngeen ma kar na leen dugg si police Guédiawaye bi. ñu dugg si biir. ñu laaj ñu ma ne leen kat problème bi nii la demee expliqué leen booy bi da koolam kóolam dafa réer. kooku may nga lay jaay Serigne Assane kooku xam na ma bu baax. Hmm. moom tey xaw ma moom mooy dégg dina ma seetaan xam ne li may wax nii après moom sax dina si jëlee loo xam ne leçon lay doon boo xam dina si jàngatee àdduna. Hmm. mu ne maanaam téléphone am dafa réer ma ne ko yow sa téléphone dafa réer mu ne ma waaw hmm. kan moo ko jël mu ne ma si masse bi lañ ko jëlee ma ne ko yow buntu Pikine ba léegi yaa ngi lang. mu ne ma waaw ma ne ko man télé mag laa yeggee si bi mu ne ma waaw ma ne ko yow sa téléphone xoolal fii koo xam ne yaakaar nga ne moo ko jël ma téye ko du dem mu ne ma xaw ma kan moo ko jël ñu dugg si biir police bi ñu ne ñan ñoo doonoon apparenté do ma ne booy bi mooy apparenté bi mais booy bii nii du jël kat ñu ne ko taxawel ne ñu ne ma yow looy liggéey ma ne leen man kalandoo laay dawal am naa poids lourd 2017 kalandoo laay dawal mais bu ma liggéey kalandoo damay lang ndax lang laa xam si laa xamee lépp si laa amee lépp ñu ne ma mais da ngay dugg apparente nga da ngay dugg ma ne waaw beneen booy bi dëkk Kër Mbay Fall Modou Gueye ñu naan ko king ñu ne ko doo mu dugg defee lañ parce que Serigne Bamba sama gàlle jël ñaari avocat pourtant loolu xejoon na si man avocat bu ne deux cent cinquante mille lan la fay muy cinq cent mille ak di dugg si maara yi di dem ay Kaolack fu ne indil ma yére boo xam ne cent mètres laa sole yére bu lépp dañ koo bind ma xam ne lii ay mbir la ma sol ko toog ma taxaw trois mois laa fa def te man mi nga xamante ne dama doon arrangé problème bi man maa si gën a fas bari te boobu am naa soxna sama soxna mu ngi nekk en état am trois six mois barki Serigne Bamba sama soxna mu ngi am six mois nekk en état am six mois yal na ko yàlla defal jàmm maa ngi koy nuyu en passage Ndeye Mati yal na la yàlla defal jàmm barki Serigne Bamba boobu mu ngi am 6 mois ma dem kaso defa fa 3 mois yu manqué 5 jours booy benn booy bi ki nga xamante ne nii man client yi ñëw nañ ba si man am na client yoo xam ne xam nañ ne ma faalu Modou Gueye booy bu gàtt bi moo jël téléphone bi ma ne ko a ah, man de lu ma xamul du ma si wax xam nga doomu aadama loo xamul doo si wax ma ne ko lu ma xamul du ma si wax parce que laaj naa ko dana jëlul ah. beneen booy mën naa ko témoin du jël kat xamee wu ma ko jël muy Assane ndax man maa ne ko yow doo jël kat demal mu man yow doo nekk ci violon bi ma di la seetaan damay dugg ndax xam naa ne yow doo jël kat ma ne ko kon demal mu ne du ma dem buum yi ko ñu teew fa trois mois Assane bi ma doon témoin un mois seize jours la def ñu bàyyi ko Modou Gueye un mois la def fort lañ rentré ñu mu def un mois ñu bàyyi ko man ma bëri trois mois yi manqué cinq jours barki Serigne Bamba ñu door maa bàyyi. sama gaale ma ñëw ñu bëri di wax booy bi bandi la te ndeysaan man xaw ma live bandi man xaw ma loolu man liggéey laa xam wàcc man boo dul live bandi ma xam ne yow mi carrément loolu moo ne si yow du ma toog yow barki sëñ Ba ma ndax xam ma rek mën ngaa def loo xam ne fekkee wu ma ko loolu mën ngaa def loo xam ne du ma ko fekkee te bu boobaa da ñu ne ma Fallou dugal ñun duñu live bandi fii nii ñun marché lañ nekk bii dañuy liggéey waaji ñaari fan la ñuy liggéey waaji rek dem suñu yoon di ñëpp dañuy yaakaar laa fi waañ la ñuy dund ñun dégg gëmuñu loolu barke borom daaro gëmuñu loolu marché bees abu moo wax la benn affaire boo bëggee dégg-dégg ñi si ëpp ñi fiy ñëw di saldeel marché bees dëkkuñu fi abarande yi fiy lang moo wax la benn affaire moo wax la benn affaire nga nangu ko moo wax la benn affaire waa yow moo affaire marché bees ñi leen di ñi fi ñëw di saldel billaahi wallaahi wa taalaay da ko ñu marché duñ ay nitu marché pourtant barki démb am na benn booy buñ fi agressé ñaari booy lañ fi agressé ñaari nit benn booy jam nañ ko si ñun lay toog chaque jour benn booy bi ndeysaan ba léegi seetee gu ma ko dinaa ko seeti Pape maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm mu jóge fi mu nekk dañ ko agressé jam ko paaka deret ju bëri la génne da xam nga la la wax daa taxaw yuuxu fekkee wu ko de mais am na ay booy yu ko fekkee ne ndeysaan man xale bu ndaw laa damay liggéey sama yaay man la yaakaar jam nañ ma agressé ko te si ñun lay toog sëñ Bamba si ñun lay toog mu ne dañ ko agressé te moom du defkat abu kooku du defkat abu te agressé nañ ko jam nañ ko wayari loo nañ ko adunaam mën na di fay yem parce que dans le boo fa nekkee diggante dund ak dee la te fa nek nekk yal na ko yàlla yëkkati fëgg boppam mu jóg ba léegi seeteegu ma ko ndax man barki démb démb laa ko yëg ak safur laa démb laa ko yëg démb laa ko yëg yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla defal jàmm parce que abu aduna du cere mais dañ koy laalo nañ gëstu jeunesse bi parce aduna jafe-jafe bi ñuy dund xam nga la moo gën a neex si àdduna abu nga xëy génn sa gaale nga ne maa ngi xëy mu leer ne yaa ngi xëy mu doon xëy bu dëggu yàlla nga si am mille francs mu leer ne da ngay xëy loolu dara daax ko si àdduna man embauché naa fi particulier boo xamante ne xam ñàlla moo doon fay dërul ma koy wax ndax dañoo nekk si télé duñ ko wax mais arrangé wu ma ndax dama kër te amaguma sax vingt cinq ans barke alxuraani karim arrangé wu ma man xam la mooma arrangé may xëy di am benn quatre mille wala benn junni di mën a jàppale sama papa sama yaay ndeysaan man maa sama caaru yaay de mais lu ñuy yaakaar si man lu bëri doole man bi may takk soxna dañ ne du ko yor barke alxuraani karim tey ñoo ngi may dégg ñoom ñëpp du ko yor sama soxna musul taxaw si nit na la mooy ma fukki dërëm wala cent te bu la rombee nga ne oh kii de gaan mooy loolu da nga koy yéene jàmm da naan oh kii moom moom jëkkëram ni yàlla rek moo ñuy suturaal maanaam ñun ñi nga xamante ne nii dañ ñoo fekk si milieu boo xam ne milieu nante la ñu nekk fi te ñu si dañuy ñee ndax dañ naan kii am na lépp fekk ñun sutura la ñuy dundee xam nga sutura lépp mooy lépp parce que yàlla suñu borom bi muy sàkk guddi sutura moo taxoon sutura ñun ñooy suturaal suñu boob yàlla ne la suturaal sa bopp ma suturaal la buñ suturaalee suñ bopp yàlla dañuy suturaal yow abu da ngaa suturaal sa bopp yàlla suturaal la sutura mooy lépp mais adduna bi niñ bu ko doxee du noonu jeunesse moo yor réew ñun liggéeyuñu jeunesse bu liggéeyul réew du dem fenn jeunesse bi kenn liggéeyul parce que alxuraani karim kenn liggéeyul jeunesse bi kan mooy liggéey yow ñaata jeunesse doomu aadama nga fekk ci mbedd bi ñoo xam ne yow xam nga leen say boy lañ wala say grand ñu koy di la romb kenn du dem booy yi kenn joobul barke alxuraani karim booy yi ngay gis nii kenn joobul booy yëpp samay gaan lañ kenn joobul mais tey ji dañuy demee seen ngor xam nga la la ñuy def xam nga nit oto xam nga nee na nit oto rapide boo si nekkee doo sonn man dund naa dund bi may lang dund naa loo xam ne dem na ba benn chauffeur mooy tax ma lang muy Jean Serigne Khadija maa ngi koy nuyu yal na ko yàlla defal jàmm mooy tax ma lang oto bu ko yoree damay lang bu ko yoroon du ma lang yàlla na ko yàlla defal jàmm jean moo may langaloo te ki nga xamante ne nii dañ koy jox ne ko demal kooku boo ko xaar rek rek doo dem boo koy xaar rek doo dem barki Serigne Bamba boo xaar koo xamante ne nii amul oto dañ ko jox oto mu dem kooku doo dem moo yor oto ne ma gaan kaay dóor ma dóor ñu liggéey mu dem ba naa ma sa papa sa papa bu yoroo la doo liggéey man damay awee sam papa seex ma déggen seex ma déggen yow micro boo wax lu am Sénégal fii. micro léppay am Sénégal Jean Mendy dañ lay wax li am Sénégal ma dégg sama gaan sama xarit sama doomu nday barki Seydina Mohamed bu yëree téeméer Rona eh, kii Abu bu yoree téeméer barke alxuraani karim man damay xam ne man damay am mu ngi ni toog barke alxuraani karim bu yoree téeméer man damay xam ne man am na ndax xam naa ne téeméeram yooyu noonu dinañ si ndékki barke alxuraani karim dañuy toog sama gaale man ak moom bokk nañ nekk gaan da nga ngir yàlla jox micro bi gaan da ngay toog gaan da ngay Thank you.